bokk projet bi te projet bii bu sottee niñ ko bindee man dama ciy gis sama bopp yow mi may seetaan ci live bi gis ci sa bopp Sénégalais yépp gis ci seen bopp parce que Sénégal mooy développé balaa ñoo sori ci waxtaan bi nag dama leen di tegal ay kàddu Asma Khadija parce que nag du harcèlement du singili du lenn mais damaa bëgg li ñuy wax na ànd ak tey suñu ay jëf parce que munoo bokk ci ñu toogoon naan Ousmane Sonko moo ne ndaw yi nañu génn te ñi nga xamante ni dañoo ñàkk seen bakkan ci manifestation yi bu ñu toogoon seen pooju nday du ñu dee nii la ko waxee woon moom Asma Khadija je me rappelle très bien kàddoom yooyu nekkoon lu ma métti lool. parce que tey jii moom buñ ko toppoon moom Asma Khadija révolution du am Sénégal buñ ko toppoon moom Asma Khadija ba tey jii Macky Sall moo fiy nekk président de la République parce que dafa bokkoon ci ñu doon wax ni pourquoi pas mënuñu reporter. élection yi nekkoon njatukeelu Bougane Gueye Dany kon lan moo war a mën a tax tay ah tey la neex nga bëgg a toog ne yow da dem RTS kaay ñu génne la sabar ñëwal balaa ñoo sori ci waxtaan bi ma génne la sabar ñun on se bat pour des principes xeexuñu. que ce soit déedéet ba xeex jotee dañoo xeex manifestation bu jotee dañuy dem ci manifestation bi mu doon nag lu légitime parce que manifester droit constitutionnel la boo xam ne dama ko am nga am keneen am ko Sénégal yépp am ko ñu bind ko ci constitution ñun ñu génnoon wala ñun ñu toogoon ci plateau télévisé di di sensibiliser askan bi ci caxat caxatee gi nga xamante ne Macky Sall mu ngi ko doon def ci constitution bi yow da nga daan toog ci sa télé Sen TV naan Mimi Touré journaliste tey yow bu doon sa jëmm rek Asma Khadija Ousmane ko du génn kaso bu doon rek yow sa jëmm Asma Khadija Bassirou Diomaye Faye du nekk président de la République ñaata yoon nga toog seen TV ci sa matinal naan nañu reporter élection yi ñaata yoon ku la ko sant Bougane Gueye Dany wóoruñu waaye lu leer te wóor mooy wax nga ko wax nga ko Asma Khadija au-delà de ça yàlla def Bassirou Diomaye fay nekk président de la République est-ce que dafa tax nga bàyyi bi Ousmane Sonko ànd ak Bassirou Diomaye dem palais de la République lan nga wax ndax Bassirou Diomaye Faye jël ses responsabilités c'est lui le président c'est pas Ousmane Sonko ah tey nga bëgg a génn na yow lan nga xaritu Pape Alé Niang nga ñun ñun Pape Alé Niang yàlla dogal na ni suñu grand la suñu référence la nit la koo xamante ne dañ koo weg loolu sax mais ñun yow lañu amal affaire man boog personnellement yow laa amal affaire te yëf yi du problème bu personnel mais man je me bats pour des principes qui que tu sois nag mënuñu fee nekk xeex ba heure bii yow mi nga xamante ne dangaa toogoon nekk ci APR du ma ne nekk ci APR mais li nga doon wax en fait yow bu ñu la toppoon benn jeune du génn manifester. révolution du am Sénégal te ba déggee ni si kon Macky Sall mi ngi fi nekk président ma génne la say vaar nag sénégalais déglu ko parce que nag ñun bu ñuy wax fu leer lañ koy teg ñu teewlu lii. bu mais aussi nit buy génne ay propos. jéemale ko si nit boo mhm. xamante ni xëy na dafa am ndombal tànk bu fekkee am nga ay kiit yu koy firndeel bu la neexee waxal te buñ la woowee procès jarul yëngal réew mi jarul yëngal dëkk bi jarul kenn parparloo na nga dem wuyu ji bu ko defee nga euh, wane kayit yi bu wane kayit yi y aura pas de de condamnation en cas wuyu ji wu pas ñoom ñoom Déthié Fall nañu ko nag waaw bien boo nga xam ne sa jamais deux cent trois yooyu ngay wax noonu maanaam xeex day saf fi amul xeex day saf mondial xeex day saf kanam la borom a koy fajal boppam ñoom nee nañ boo bëggee jàmm rombal Ousmane Sonko ndax nag benn bëñ la si gémmiñ weex rek. maanaam su ko mooy. maanaam nga laal laalaake. Déthié Fall mooy waxaax ki nga xam ne mooy. président Macky Sall. waaye nag ñoom. bul ko laal bul ko jege. bul ko laal bul ko jege. eh boo ko laalee. waa benn woon nag nee nañ Déthié Fall yow waxoo fi dara demal nga toog Pape Mahawa gisul. maanaam loo leen loo leen ñu jënd ko. maanaam da ngay rek. da ngay sóob loo ñu jënd ko. boo leen ñu bippee bippee ñëw leen Illimix woote ba mu am. di ngeen naa ci buuxum soow gis nga amul capitaine. Massa li mooy wax ba tey. moo nekk nii. Moussa Badji dinaa leen ko andi léegi c'est-à-dire li tax man depuis démb bokkoon naa ci njëkkoon ak njëkkoon ñi njëkk a génn bind ci sama page Facebook que c'est une insulte pour ces jeunes qui sont morts lors des manifestations parce que ay nit mënuñu génn. manifester pour lan révolution am Sénégal mënuñu génn manifester pour mbuumu jaam gi nga xamante ne Macky Sall daf ñu ko jëloon euh, def ko suñu mbuum gi mën a dog Asma Khadija toog ci seen TV ne doom doom ñi nga xamante dañoo dee ci manifestation yi bu ñu deewee ñoo ko teg seen bopp bu ñu toogoon seen pooju nday li yëpp du leen fi fekk Asma Khadija moo ko wax moo wax lii mu munoo wax loolu ba pare bëgg xëy na yow dangay lekkat say waccu dama ne saay boo ko defee tamit dañ lay génne say vaar ma déglu ma tegaatal gaa yi say wax ñun ñun xolal ñun principe lañuy xeexee principe yi ñu doon xeex ma Macky Sall ci la ñu ne ba tey ci lañu ne ba tey man bañu ma ci ba tey sama pancarte dem taxaw buntu RTS man bi ma déggee Asma Khadija à RTS c'est comme si man dañ ne ma par exemple Aïssatou Diop Fall dellu si na Walfadjri wala Aïssatou Diop Fall dellu si na ma nga ma nga RTS wala Mati Trois jël nañ ko RTS man c'est la même appréciation moom laa ci am ma tegaat kàddu Asma Khadija mais aussi nit buy génne ay propos jëmale ko si nit boo mm-hmm. xamante xëy na dafa ndombal tànk boo fekkee am nga ay kiit yu koy firndeel bu la waxal te buñ la woowee procès jarul yëngal réew mi jarul yëngal dëkk bi jarul kenn par parloo na dem wuyu bu ko defee. kàddu yii ma fàttali leen ci ban contexte la ko Asma Khadija waxee woon procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang diffamation na bu dee yow li ngay wax wóor na la am nga ay kayit jarul yëngal réew mi maanaam Ousmane Sonko mooy yëngal réew mi. Ousmane Sonko moo andi bruit ci réew mi Ousmane Sonko moo génne ndaw ñi ci mbedd mi ba ñu ci dee dee ci Ousmane lii nga bëgg wax kaay ma tegaat ko nga déglu. ñu laal Ousmane Sonko. mais aussi nit buy génne ay propos. jëmale ko si nit boo mm-hmm. na ay kiit yu buñ la woowee procès jarul yëngal réew mi jarul yëngal dëkk bi jarul kenn parparloo na euh, de de condamnation anta wuyu ji réew mi jarul yëngal réew mi jarul xale yi di génn pour manifester lii moo tax chaque jour ma naan nit looy wax na la leer nit sooy wax taxawal sa bàmmeel waxal yàlla tax parce que ëllëg dafa am ëllëg dafa am ñun on s'est battu pour des principes xeexuñu tey pour quoi que ce soit non au contraire bi Bassirou Diomaye Faye nekkee président de la république dañoo falal wéyalaat suñu liggéey parce que yàlla dogal na ni am nañu suñu liggéey ñu ngi sant yàlla tey nag gunge projet bi di gunge projet bi parce que nee nañ c'est un projet boo xamante ni ñun dañ cee am yaakaar am yaakaar ni lii war naa mën a tax Sénégal développé duñu nangu nag un soi-disant neutre te yow sax da nga dul neutre parce que wane woon nga sa bopp bu baax a baax tey jii nag la xanaa tey la doom neex ndayam tay la doom neex ndayam sa wax ji dama koy tegaan ñëpp dégluwaat déglu leen Asma Khadija moo waxoon lii ci procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang ñu teew ko. bu fekkee am nga ay kayit yu koy firndeel bu la neexee waxal te buñ la woowee procès jarul yëngal réew mi jarul yëngal dëkk bi jarul kenn par parloo na nga dem wuyu bu ko defee nga euh, wane kayit yi bu wane kayit yi y aura pas de condamnation. en cas wuyu jiw pas ñoom ñoom Déthié Fall ko nag. dégg bu baax li mu wax moom Asma du samay wax ay waxam la. am naa lu ma métti nag tamit parce que depuis depuis démb ba tey ñu ngi naan Salma Salma xaw ma lan dama ne man Salma Ibrahima Fall laa tudd moom Asma Khadija bokkuñu principe bokkuñu doxalin bokkuñu jikko man Salma Ibrahima Fall tudd moom Asma Khadija ma leeral loolu. beneen point samay confrères wala euh, sama ay naataango yoo xam ne euh, ñoo bokk milieu bi ñu déglu leen kenn ci ñoom parce que nag bu ñu nee diw baax na la la ñuy wax ndax mbokk yaa ko wax. waaye buñ ne diw baax na dañ naan ndax ña liggéeyandool wala diw professionnel na mën na li muy def ña muy liggéeyandool ñoo ko wax am déet nañ déglu kii Mamadou Mansour Diop la tudd. mooy choisir ku ko neex moom mooy recruter ku ko neex d'accord mais am na recrutement yoo xam ne bañ a recruter sax moo ko gën mënoo fekk nit koo xamante ni il part da doon temps yëpp mu ci jox aji saa dëkk saaga Ousmane Sonko saaga projet bi. Euh, pour ñu dàq élection yi minimiser candidature Bassirou Diomaye Faye xebe président Bassirou Diomaye Faye di promouvoir ay deuxième tour di wax lu dul dëgg di cautionner lu dul dëgg nekk benn outil bu ñuy xeexee benn outil bu ñuy liggéeyee bépp saal boulot bu ñu santee nga def ko ak ñu xëy benn suba li ñëpp bokk ñu seen la fa dinañu laaj ki la fa yóbbu lu tax yóbbu la fa xanaa daa wala déglu mbaa mu lay siiw loolu moo ci sama avis je ñëw na nag lu may jël décision wala joxe sama at ci lu concerne nit ci wàllu liggéey et bii moom dinaa ci am position parce que ndaw si damaa liggéey moom fële ba xam ba nit la bu noppi jàmm dong laa seq ak moom nag mais am na yoo xam ne moom ku ma ko sant ma bañ ci wàllu liggéey bi impression bi ci Mamadou Mansour jóob mii am man moom laa ci am sentiment boobu laa ci am dafa mel ni yatukel gu ñu jël dóor ko sama bopp c'est si nga ne ma rek Bah Diakhaté jël nañ ko RTS c'est comme si nga ne jël nañ ko RTS dëgg la RTS moomeelu ñëpp la waaye dafa am loo xamante ni euh, euh, euh, télévision boobu wala structure boobu image boo xam ne da koy dégager da koy dégager déjà balaa ngay dugg foofu war nañoo def enquête de moralité ci yow enquête de moralité yow yaay kan foo jaar sa jaar-jaar ñu xoolaat ko internet beeg fépp ñu xool après Mamadou Mansour Diop Ahmed dara keneen ci ay collègue yi nga xamante ni moom la doon liggéeyam waxaat na nañ ko déglu connexion bi dafa mel ni dafay day déconné fii attends xoolal ma lii s'il te plaît en attendant fii am na ay journalistes yu ko yu yu compétent Maty Sarr boo waxee sax dañuy foog ne yow da ngay bëgg a lobi nit mais par exemple Mati Sarr Niang journaliste la boo xamante ni dañ ko tëjoon kaso mu soxla réinsertion soxla xëy pourquoi mënuñu ko jox chance am entre autres journalistes boo fi nekkee du tudd sax dañuy foog ne yow dangay ngay pour quelqu'un alors que c'est pas ça je vous disais tout à l'heure après Mamadou Mansour Diop Ahmed Aïdara dafa liggéey ak moom te dama ne bu ñu nee diw baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax waaye buñ nee diw professionnel la dañ naan ndax ña muy liggéeyal ñoo ko wax nañ leen déglu Ahmed Aidara man Asma Khadija biir RTS bañu ma ci ba yore sama pancarte maa ko wax. moom moo am ay prérogative wut équipe bam fas defaraat télé waaye man personnellement par suma waay chaque jour dañuy jokkoo téléphone gis xale bu jigéen bi bokkoon naa moom liggéey mu mënoon naa ne naa am kersa ci lii ak lii soit ma ne man aw ma ci réaction. damay taxaw. waaw damay neutre. wala ma wax la ma ca xalaat. dama Sénégalais laa. la ma ca xalaat mooy. su jàpp. non dama ne. man dama bien placé man pour wax ci. téléphone am yi nii sama téléphone. bu ma waxee ne ma dégg naa li nga wax dama naan ko asma ba mu ne naam ma ne ko man sama xalaat te bëgguma fen yow jàppoo ci projet bi parce que man ak yow xuloo nañu une fois ci plateau parce que sama gis-gis daawul mës a bokk ak sa gis-gis. sa gis-gis mooy ces gens-là ont détruit le pays te jotaguñ le pays buñ jotee le pays dëgg ko RTS la comme comme moom nee nañ alalu mbooloo mbooloo la deux ans bu ndaw gii rek comme télé privé yi wéy ma nga ñëw signal diw diw muy bale lam ko fay doyee nag comme nga xamaguma ko xaw ma day bale xaw ma day fóot xaw ma day palaatoo waaye lu mu ca mënta def lu mu ca mënta def laa la wax man sama gis-gis bu gàtt laa wax de sama gis-gis bu gàtt amul fa place loolu moom ci bi gars yi di liggéey ci projet bi la balaa ngaa jël Moussa Mbaye te Daouda Sarr mii ne fi xeex ba mi sax pare naa fii xoolal génne waatal ma beneen bi bu saa saa njoogu bi dégg ngeen li Ahmed Aidara wax nee na ñoom ñaar yàgg nañoo jote ci plateau ndax lan lim koy wax nee na Asma Khadija da ko doon wax naan ko ñii danoo yàq réew mi te ñëwaguñu au pouvoir moom Asma Khadija mi ñu jël tey moo wax lii nee na waa waa Pastef Ousmane Sonko et consort danoo yàq réew mi te ñëwaguñu ci pouvoir bi kon bu ñu ñëwee lan la def Asma Khadija yaa wax lii loolu la Ahmed Aïdara répété tey Asma Khadija yaa toog ci seen TV ne xale yi bu ñu toogoon seen pooju ndey li yëpp du leen ci fekk Asma Khadija yow yaa toog nga ne manifestation jaru ko bu fekkente ni yow Ousmane Sonko sa diggante ak Mame Mbaye li ñu ciy wax wóor na jarul lii yëpp jarul muy bëri.